Par conséquent, jugé par contumace, l'homme Ousmane Sonko doit aller en prison pour deux ans. C'est -ce donc une satisfaction morale. le, euh, le, exactement de votre client aujourd'hui Oui, oui, ma, ma, comme moi, n'est pas satisfaite totalement. Elle aurait bien voulu la condamnation de M. Sonko à la peine attendue, dès lors que le contact sexuel n'est pas rejeté. Dès lors de corruption de jeunesse, donc d'exercice de la puissance sur Adjissar, exercice de l'influence sur Adjissar pour pouvoir accéder à son intimité. Nous allons nous concerter pour voir tout cela, mais pour le moment, laissez-nous laissez-nous fêter notre victoire. Nous, ne sommes pas satisfaits totalement, mais nous sommes satisfaits en partie. Donc nous avons une victoire. On n'a pas une victoire totale, mais on a une victoire sur un homme qui a essayé d'intimider la justice, d'intimider l'État, de montrer que si on le condamne, ça va faire euh, exploser le pays. on va vers le chaos si on le condamne. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est condamné à deux ans de prison ferme. Et il a été déclaré coupable. Donc Ousmane Sonko est un coupable. waaw waaw ñu déglu li am tey mooy tey dafa nekk bis bu mag bis boo xam ni ñu bëri dañ ko ragaloon am nu ñu ne war sax Ousmane Sonko kenn du ko moom ci boppam gis ngeen def na lu ne pour kenn du ko at ordonnance de renvoi bi bi mu ñëwee ñuy def appel di def waat ordonnance jël biñ waaw loolu mooy nee nañ corruption de la jeunesse. mooy abusé ci benn xale. boo dafa laa ragal muy daw. nga di ko def lu dul noonu. Ah. du du jël ko waaye nee nañ xëy na loolu yeegul ci viol pour ñoom pour ñun viol la pour ñun ñu ñu doon nekk minimum dix ans wala vingt ans wala quinze ans donc ñun kontaan nañ ne kontaan bi des na ndax ba ñu doon kontaan ñu jox ñu lu ñu laaj yëpp mooy wane ni ñu yeggee ci ñun lu tax ñu war a tëj Ousmane Sonko fukki at wala ñaar fukki at ndax yoon loolu la wax. waaye nag dañ ko indi ci corruption de la jeunesse mooy yegg ci xale boo xam ne ci xale waayam ci ñàkk doolem nga abusé ba mën a tëdd ak moom kon loolu kon la Adji Sarr waxoon en parti nangul nañ ko ko loolu indi ñaari at yi nga xam ne ah, Ousmane Sonko ko tëdd ci kaso bi kon suñu mbégte am nañ mbégte waaye mbégte bi may ma may ma may ma mbégte bu rëy Ousmane Sonko dafa gëm la woon Sénégal yi dafa am doole ba tax bi ko war a au tribunal dëkk bi di bëgg a dëkk bi di taalu dëkk bi bëgg a jaay doole juge yi di leen intimider di leen saaga moom Ousmane Sonko ba ñëpp demoon na nga ni kenn ñemewul àttee Ousmane Sonko mu sell mi tey tribunal wala na ni Ousmane Sonko sellul tëj na ko ñaari at yoo xam dafa ne ko am na loo seeg ak xale bu jigéen boo xam ne danga nga ko jaay doole da ko woon da nga influence ko woon ah mu ragal la nga am noo def ak moom ko dafa tëdd ñaari at kaso kon xam ngeen ni wedd wu ñu seq na dara xale bi waaye viol dañu naan viol mooy loo xam ni xale bu jigéen bi d'accordu ci. ndàmpaay bi nag mu toll si ñaata waaye yoon nee na ginnaaw mu teg ko ñaari at yu war a tëdd fii ci kaso bi jege bii ku ñëwoon bu ñu ko tëjee dëkk bi tàkk. yoon am fit tëj ko ban date lay mu war a fay six cent mille franc amende ëlbatiku rek di ñaar fukki million noog Ndeye Khady ñu jox ko ndàmpaay solidairement en bi saa kon ku deful dara ku deful dara doo fay ñaar fukki million kon tey am nañ ndam lu rëy a rëy waaye ndam li mënoon naa gën a rëy nag buñ ñafoon fukki at mais da nga am na acquittement quelque part fan lañ ci acquitté eh, comme viol comme retraité nañu viol mënuñu ko tëj ci loolu moom mooy jël xale jigéen leen di leen def loo dul noonu est que ngeen def appel maître loolu di leen ci waxtaanaat mais am na lu ko naqari li ko naqari mooy mu doon nekk fit tëj ko mu war a fay six cent mille francs amende ëlbatiku yëkkati ñaar fukki million noog Ndeye Khady Ndiaye ñu jox ndàmpaay solidairement en à Adjira bi kon ku deful dara doo tëdd ñaari at ku deful dara doo fay ñaar fukki million kon tey am nañ ndam lu rëy rëy waaye ndam li mënoon naa gën a rëy nag buñ ko ñafoon fukki at buñ ko dóoroon fukk Ndeye Khady Ndiaye lan lañ mën a xaati moom daan ba pare waaw dañ complice de comme retenir ñu viol mënuñu ko tëj ci loolu. am na incitation à la débauche kese moom mooy jël xale jigéen di di leen def loolu dul noonu. est-ce que di ngeen def appel maître. loolu dinañ ci waxtaanaat ñu xool ndax sur client sur client am na mbégte mais am na lu ko naqari li ko naqari mooy mu doon nekk kim jiiñ ji tëj ko fukki at ndax loolu loolu viol loolu wax waaye bañ ko tëjee ñaari at du am mbégte bi mu yaakaaroon mais comme kom ponkal la moo xam ne ñu bëree ko ragal ci réew ñëpp foogoon nañ ne bu ñu ko tëjee dëkk biir tàkk foogoon nañ ne kenn njëbbu koo tëj lu mu def rek day dem fee menacé oote ay meeting rassemblement gatsa gatsa pour ñëpp ragal ko waaye gatsa gatsa massa massa deux ans de massa massa la. est-ce que le droit a été dit selon vous. comment. est-ce bi mooy apprécié. ñun après on commente rek comme yow. Ousmane Sonko yi ne la juif du loolu yàgg na depuis Mame Mbaye la bokkatul. depuis depuis li ko li ko tëjoon ci Mame Mbaye ci la nalaw bokkatul bii ba ñu da cee yokku rek. ah tëdd heure bu ko yoon bëggee rek heure bu neexee yoon jëli ko ñu ko def kay tëdd. jërëjëf.